léegi waaye yow yow ak Diakha bàyyante ngeen. non bàyyante génn bay ku génn mooy bàyyi ku sama ami dama pense depuis xale mën naa la euh, na. non non léegi vidéo yi kan moo ko parce que moom nee na yéen ñaar yéenay génn yow Gambien nga ma mel ngeen nekk ay lesbienne ngeen léegi nag moom dafa noboon Diakha wala sûrement que kooku dafa noboon Diakha ngeen di génn rek moom na leer daal affaire yi. naa laa nu mu deme kon. voilà. waa léegi genre vidéo yi nag. ah doo leen baax na léegi man guddee dinaa la woo minuit incha allah dégg ma tëdd incha allah. baax na Adja. Adama bàyyi si li ngay def diwuma dara guddi kay lépp bu leeree incha allah ñu dind ko ñëpp a ngi commentaire ku ma ci woo jotuma ne dinaa teppi sa lëfal ndey yow moom sama xarit nga mais aji moom woo na ma léegi léegi nee naa ko su ma la wooyee jotuma la mooy daxaar naa sa ndey mu naan ay ami d'enfance ak ami lii kay dañ ko war a leeral ba mu leer naññ parce que man juste là damay leeral lu leer naññ. paragraphe am mën ngay def dindil vidéo yi soo ko dindee moom jarul muy ñëw man dinaa ñëw ma leeral xam nga man yoolu tey de yàgg na kaa bu nekk ànd nañ ci di ko traité kon donc waroo doxalee ni aadama te yow xam nga saa lii lu ñàkk fayda la man nekkuma ci li su ma nekkoon ci lii damay naan ci lii laa nekk yaay comprendre sama vie sama vie la man du ma ko nëbb kenn mais nekkuma ci lii ay foo la man ak moom dañoo gis gisante nekkuloon sar bon bay li ngay wax waaye man aw ma ko doon yow yaay sama amoore man ak yow da tey yàgg na démb la man maay sa aawo jaar nañu fu nekk nag ñi fi ñëw yëpp tee la ñuy door a ñëw kon donc su ma la waxee lii la lii la gëm ma xam nga man du bala mës a trahir yaay sama jëkkër fu ma mënta ne uyu naa la fii